Euh, loo xam ne lii war nañu sukkandiku pour wax ne moom mooy daaw keneen ki bon dafa li ñu nekk li ñu wax au coude voilà ñoo yamagum doole pour le donc rien n'est encore. comment dirais-je tey jii bu ñu doon wax ci enjeu yi euh, yi nga xam ne élection bi am na ko euh, ci États-Unis d'Amérique bu deux mille vingt quatre euh, tey jii lan mooy enjeu wu élection yi bu fekkente ni Trump jëlaat na réew mi lan mooy xew bu fekkente ni Kamala Harris moo ko jël lan mooy xew lan mooy defi taxaw ci élection bile. waaw fi ñu toll nii ci àddina si. képp ku képp ah ah képp ku man a gagné muy Trump di Kamala Harris États-Unis dox am problème bu mag. Mm. parce que àddina si dafa am mutation bi commencé changé lu jëm ci politique économique militaire sécuritaire dafa am les pays yi wax les BRICS ñoom taxawal nañu seen kuréel te BRICS boobu ñoo jàkkaarloog États-Unis la léegi nag yéen rek ne newu leen ci àddina dootoo leen fi def lu la neex ñun dañu jóg taxaw ci Chine moo ci jiitu Russie topp ci Inde Afrique du Sud euh, voilà donc BRICS boobu tey ñoom quel que soit les résultats kiy gagné dana jàkkaarloo BRICS boobu dootu yomb ci États-Unis dootu yomb ci ñoom parce que àddina si dafa bëgg a am seen autonomie am seen indépendance la Amérique doon noté nit ñooñu dañ koy dindi bon Israël la ñuy utiliser pour ñuy def ay kii di euh, parce que juifs fi ils sont très nombreux euh, dañu dañu sakkan foofu ci États-Unis euh, moom man ñu wax sax ne dañuy influer ci élection yi mais yooyu yëpp amatul taxawatul taxawatul parce que yooya jaxatul kenn fi mu ne nii pays arab yi tiituñu ko ragalootuñ ko parce que rien qu'avec l'Iran tey bu la neexoon tey Israël te dootu ko wax voilà donc lii moo nekk ci enjeu yi élection yi ak képp ku mënti rek ne la wóor ne dana jàkkaarloo ko ak Russie parce que Russie justement ak Corée du Nord bi ñoo fekk si ko dafa am lu ñu ciy jàng loolu mooy États-Unis moytul dafa ndànk te eh, boo yeboo nga yem te nga bàyyi seen ñi ngay xam ba pour ñu ñëw di attaquer Russie wala di attaquer maanaam tu as les partis tu as du monde yoo xam ni bokkuñu ci ci contrôle États-Unis Euh, tey jii lan mooy chance su déjà Kamala Harris ci élection bi mu nekk jigéen euh, États-Unis d'Amérique mosaguñu am njiitu euh, njiit bu bu bu jigéen moom yan chance la am exactement wala ñuy ñëw ci chance su Trump yi. waaw Kamala Harris chance bi mu am mooy. xam nga États-Unis quand boo xoolee américains yi maanaam dañuy sat dañu mën a sot sot bi mooy maanaam jigéen ñi bu ñu lëkkaloo bëgguñu gis seen moroomu jigéen boo ñu koy néewal doole wala affaire yooyu donc damay ragal ne élection yi bu Camara Ayes wala gagné jigéen ñi ñoo koy ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy. def la différence. ah waaw voilà justement voilà. côté Trump lan mooy euh, chance am luy handicapam euh, euh, man man personnellement man Trump wóoluwuma ko parce que amatul confiance nit dañuy duti ci moom. Mm. ñuy duute parce que bon du nit ku koo xam ne kii dafa stable quoi sur le plan caractériel bon peut changer du jour au lendemain moo tax affaire am wóorul man de moo tax fi mu ne nii je suis certain que la plupart des électeurs am na ci moom quoi bon à part maintenant les grands états ségrégationnistes anciennement racistes mhm. bon Trump en général voilà les Texans républicains et les anciens pays quoi nga xam ne bon ils ont fait la guerre de sécession. Mm. bon ñoom bon c'est des conservateurs voilà la xam ne peut-être buñ koy woteel ñoom ñoo koy mm. mais est-ce que Amérique pare na pour am njiit bu bu jigéen est-ce que Amérique d'une manière globale. Euh, waaw mais on peut dire que pare parce que xam nga à un moment donné kenn mosul doon xalaat président états Obama est réussi à président. du dëgg kenn foogu ko woon du moins dafa teel dafa teel a ñëw mais donc ni Obama nekkee président en tant que noir noonu la Kamala Harris mën na nekk jigéen buy jiite États-Unis kooku moom du gàllankoor bu mag. est-ce que aussi Afrique dafa war a intéressé wu ci élection bile est-ce que am na enjeu jëm ci Afrique. waaye mais am na enjeu particulièrement sur le plan géopolitique international surtout militaire sécuritaire parce que booy Sénégal. dëkk bu ndaw la waaye yàlla daf ko def ci diggante mi nekk ci centre addina booy xool carte du monde. Mhm. parce que mi ngi nekk diggante États-Unis Amérique Amérique du Nord Amérique du Sud nekk diggante euh, Afrique ak Europe nekk diggante euh, le reste du monde avec l'Asie mhm. donc situation boobu c'est privilégié sur le plan militaire te pays bari dañuy fexe pour am maanaam une base au niveau du Sénégal. Mhm. voilà parce que géopolitique boo koy kii da sa xel day rabat fu Mhm. donc Sénégal moom xaw ma kan mais moom on est très intéressé par cette élection. par cette élection. Euh, ñu aussi ci mode de vote bi nga xam ne moom moo am États-Unis d'Amérique parce que souvent dañuy dégg euh, grands électeurs est-ce que mën nga ñu expliquer un peu mode de vote bi nga xam ne moo am ci États-Unis d'Amérique. Euh, bon mode élection grand électeur ba léegi ba léegi ba léegi ñun amaguñ ci élection enfin ay ay explication wóor bon aux États-Unis depuis toujours euh, dañu wuteex nit ñi daan en quelque sorte parce que grand électeur mooy lan noo koy comprendre bon bu fekkente ne xam nga comme euh, comme Hillary Clinton bi mu nekkee bi mu nekkee candidat moo gagné woon Trump moo gagné woon Trump sur le plan quantitatif maanaam électeurs yi ko woteel ñu ëpp électeurs yi woteeloon Trump mais pourtant grand électeur la ñu indi pour wax ne non Trump moo gagné voilà mooy genre problème yoo xam pas à dessiner exactement euh, euh, la configuration bon. kon mënuñ exactement grand électeurs comment ça se passe wala leerul nekkul lu leer carrément. parce hmm. que c'est un fourre Oui. Euh, les lobbies, les, euh, les, lobbies aux États-Unis avec les juifs ils sont très forts. Hmm. Ils sont capables, à travers les grands électeurs, de faire modifier des élections. Ils sont hmm. non capables. Hmm. bon léegi États-Unis c'est un corps arbitral boo xam ne sur l'équilibre euh, euh, après électoral entre le, gagnant et le perdant parce que euh, les voix se sont sont bien contrôlés, bien vérifiés, etc. etc. Mm. Voilà. Mais, mais aux États-Unis, bon, euh, il y a des forces occultes qui se terrent dans l'ombre, mais qui, qui qui peuvent agir. Voilà. d' accord kon est ce que mën nañu jàpp mode de vote boobu di grand électeur est ce que dëppoo na ak li ñuy wax démocratie parce que bu ñuy wax démocratie automatiquement ci àdduna bi xel yépp dafay dem ci États-Unis d' Amérique est ce que ñoom mode bi ñuy tànnee seen njiitu réew dëppoo na ak démocratie bi ñuy woote. à mon avis a mon avis dëppawul dañuy wax démocratie mais démocratie bi nekk aux États-Unis pour man ni ñu ko jàngatee du démocratie c'est lu la neex moom la mais c'est une démocratie réelle parce que am na affaire yoo xam ne yi ma ngi fay xew ba léegi te bu doon démocratie dëggantaan dafa am par exemple ni ñuy accusé noir ak bon léegi sax wàññeeku na mais bu njëkk ba ni ñu daan tëjee américains yi noir américains yi di leen yóbbu chambre à gaz euh, par un tribunal boo xam ne bii yëpp ay racistes lañu mais loolu pour moi à mon avis démocratie voilà donc euh, démocratie pour man euh, modèle Amérique c'est pas un modèle de, démocratie voilà mon avis euh, d'accord tey jii aussi bu ñuy wax euh, euh, ñaari courant yi am aux États-Unis d'Amérique di les démocrates et les républicains ñan ñoo ci ëpp doole vraiment ñan ñoo ëpp doole les démocrates ou les républicains bon pour nga pour nga pour nga def une comparaison ci ci anam boobu dafay parce que xam nga. Mhm. Euh, li a li ñu koy mën a mooy que depuis l'histoire des États-Unis la guerre de sécession euh, la loi de Lincoln Abraham Lincoln sur euh, l'abolition de l'esclavage yooyu yëpp on a vu que mais quel que soit alpha après euh, c'est les républicains au sens pas républicain actuel mais au sens de Lincoln euh, qui voulait appliquer la loi Il y a toujours cette loi, elle est là. Bon, bon, ça représente la force morale, la force des États-Unis pour la justice. Voilà. Mais ça n'a rien à avec les républicains actuels que nous constatons. Donc, il mmh. Euh, a pas euh, amul amul amul maanaam lu ñuy a sukkandiku mhm. pour affirmer que bon républicains yi wala démocrates yi ñoo ëpp euh, c'est c'est ah, maanaam élection yi rek ngeen mën a pour xam que bon tendance bi Mhm. voilà. mais mhm. c'est pas c'est pas c'est pas absolu parce que je rappelle encore une fois. Mhm. Euh, Hillary Clinton. bi ñuy def bi mu élection sa première candidature. quantitativement moom moo ëppoon tu vois largement mais grand électeurs indi ay communes non gagné wul parce que motion si dugg na loolu moo tax pour man démocratie boobu ñuy wax mm-hmm. existé wul réellement quoi aux États-Unis d'Amérique merci voilà. Euh, Idrissa Ba ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci leeral yi ok salut voilà ñuy fàttali ni Idrissa Ba expert nga en géopolitique jërëjëf merci beaucoup